Euh, daje bi comme ni nga ko waxee dafa nekk daje boo xamante ni bu am solo la parce que tax na ñu wax nit ñi fan la ñu toll ci wàllu feebar bi fii ci département bi te comme niñ ko gisee tey jii amul benn gox ci biir département bi bu mën a wax ni feebar bi nekku fa lim bi nga xamante ni moom la ñu gis ci ñi am feebar bi aussi mu ngi yokk depuis que ñu levé état d'urgence la te loolu Euh, dafa nekk ci contexte boo xamante ni service yu état yi ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan muy waa santé muy waa police waa gendarmerie waa service d'hygiène moo tax ñu ni tey jii nag jot na pour que askan wi jëlal boppam xeex bi nu mu koy jëlee lu yomb la mooy ñi nga xamante ni ñooy ñi nekk ci biir askan wi jóg ni ñoom lii lañ ci mën a def gunge ci état ci wàllu woowu comme niñ ko gisee waa ODCAV bu mbuur ñoom taxaw nañ euh, jël ndogal boo xamante ni dañoo jàpp ni ndogal boobu rek mooy bi war a nekk ni ñoom ren jël nañ décision yi bu ñu organiser nawetaan waaye duñ ci yem dañuy jël énergie bi nga xamante ni moom la mouvement nawetaan doon euh, drainer jaarale ko ci association yi jëmee ko ci xex mbass mi nan lañ koy defee moy zone yi dinañ dajalé ASC ya fa nek ASC bu nek ci quartier bu muy yëngatu mu xol nan lay euh, indé ay tereline pour jéem ko doxal pour sensibiliser bu waree laaj ñu joxé ay masque ñu joxé bu laajee aussi ñu tek ay dispositifs de lavage des mains ñu def ko donc loolu mu nek décision bo xamante ñu ngi koy rafetlu té di leen ci féliciter benen bi. mooy dañu ni xeex bi mënuñu ko réussir te dugguñu ci biir quartier yi te quartier yi xam nañ ni ak village yi ay euh, délégué de quartier ay chef de village ñoo fa nekk ñoom jël nañ engagement bu ñu delloo dajale ña nga xamante ni ñooy yëngatu ci biir quartier bi muy imaam yi muy ndaw ñi muy jigéen ñi ñu xool yan matuwaay lañu war a jël pour que xeex bi mën a nekk lu ñu jëmmal ci biir quartier yooyu te bu boobaa ñoom li ñuy jëf dañuy d'abord euh, compter ci seen i moyens propres mooy dugg ci biir quartier bi ña nga xamante ni yàlla dénk na leen fa wërsëg ñu dem gis leen leen soxla nañ temps ci masque soxla nañ temps ci ay dispositifs lavage de mais xool ñoo ñu na leen ci jàppale. bàjjenu gox yi aussi jël nañ euh, engagement boobu imam yi ak curé yi jël nañ engagement boobu waaye aussi communes yi jël nañ décision ñooñu bu ñu tëggee seeni doxalin am ci ay jafe-jafe ñu gunge leen ci pour que xeex boobu mën a nekk loo xamante ni tey jii toll nañ foo xamante ni lépp luy dajale ay mbooloo dañ ko war a moytu parce que gis nañ ni feebar bi ñi koy am ci mbooloo lañ ko amee wala ci yenn bëri ni ma ko waxee ci nasaraan communauté Mandeng ku xam-xam ni ñu responsable ñoo fa nekk te yaakaar naa ni dinañ toog ak ñoom waxtaan te décision ba fay juddoo dina nekk décision boo xamante ni dina yombalal état liggéey pour que askan wi mën a bañ a loru ci mbas mi. resto yi ak baar yi ca Saly il faut parce que respecté wuñu les mesures barrières surtout soir mu ne ma dama dem foofu sama yaram dafa doon. fépp dafa fees nit ñaa ngi fa fees loolu boo ci jógulee ragal naa ne mën naa tax corona bi gën a tasaar jàkka yi naam jaamu yàlla dëgg la waaye respecté li nga xam ne lii dalay sàmm su nekk xam ne jàkka yi yi ñoo ko waaye dañuy respecté seen sàppe yi ñu dem ba taxawal julli nga gis ñu jugee fële daal di membre ñoo ko gis seen diggante di julli loolu aussi ñu dabal feebar bi te kenn mënu koo contrôler ndax kenn duñ dagg sa julli di def di wax ne jombal ne wala ne te amul kenn koo xam ne mën naa taxaw ci bu jàkk ji naan fii ngay taxawal soli kon nag ñu a xool day am ñoo xam ne am jëndee masque am na si gaar mais ñi ci ëpp dañu foog ne bu ñuy takk masque bi ñoom dañ koy takkal police wala gendarme man fii si marché bi laa nekk si centre de santé mais damay gis chauffeur yi ñu jël seen masque lonk ko ci seen rétroviseur bu ñu seenee auto police bi ñu daw jël ko lonk comme si ñoom police la ñuy takkal gis jaaykat bi mu toog jël masque bi lonk ko wàccee ko si bànq balaa jaaykat bi seen seen seen police wala gendarme jaaykat boobu ñaata nit lay waxante moom ci boppam bu amee corona ñaata nit la koy wàll foofu loolu yëpp il faut ñu wax ñu sensibiliser nit ñi ñu xam ne ku takk a feebar bi seen mën si di law seen koom day wàññeeku parce que nit ñi mu nekk yëg nga ne si mu nekk nii ak corona bi la nit ñi amoon amatuñu si de telle sorte que ragal naa ne ku leen expliqué ñu xam ne que bu ñu takkee masque si diir bu yem feebar bi dina fi génn bu boobaa nit ñi dem ci yeneen yi ragal naa ne dinañ ko comprendre euh, chaque chaque mentuelle yi ñuy wax démb rek messager de région ñëwoon na fi Mbour ba mu ñëwee posé nañ ko problème mu ne. dina ko poser au ministère mais en nañu ut des solutions alternatives yeneen sac yu ñu mën a def pour mën di désinfecter le ko jébal parent carburant bi docteur Kële wax docteur Mbaye carburant bi métti na ñun district bu des fois dinañ utiliser 100 litres carburant parce que suñ la wooyee gàppalu nga dem testé suñ la wooyee teen baax nga dem testé suñ la wooyee Euh, poñ saareen nga dem testé dañuy yendoo daw testé su nekk soo paree nga jël oto yóbbu testé yi jam ñaaju soo am may malade bu war a dem centre de traitement mm. moo xam Thiès moo xam Dalal Jàmm moo xam jam ñaaju moo xam Fann nga jël oto yóbbu des fois nga am ñaar wala ñetti malade yooyu yóbbu soo amee malade bu wér ci centre de traitement yi Thiès ñu woo la ne la indil oto nga jël malade bi de telle carburant bi fu ko natt si vingt-quatre heures si ñu soxla weesu na sax service d'hygiène bi fu ñuy dem di bi ñoom ñoom ñooy ànd ñuy désinfecté fu koor am koor sang bi si kër ñoom la ñuy woo ñu dem désinfecté ak léegi yëpp dafay demander ay moyens